asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu mag bu rëy bii man nag ni ñu ma présenté woon ni ñu ma présenté woon ci band annonce bi du ma toogee fii rek laa xam ni du ma toog toogaay boobu bokkuma tey ci ñoo xam ne dañ leen a invité pour ñu conférence xëy na commentaire laay def mënumaa ñàkk toog ci xadra Cheikh Oumar te waxuma ci dara waaye nag ngeen xam ne kenn laa ci taalibey kër gi di kenn ci organisateurs yi nga xam si ñoom ñoo war a organiser ziar di kenn ci ñi nga xam ni man maa war a wax sang yi ni leen dem leen ngeen recevoir gagné ak organiser ngeen bàyyi ñu li ci des lii Thierno Nour wax léegi eh, li nga xam si naroon naa ko wax dana am lu ma wax ci Cheikh Oumar waaye bu fekkente ni xaj na fi dinaa am ma ci wax bu ci xajul ñu doyloo li nga xam ne moom la kilifa jiw na la wax eh, kii di bëgg a wax nag Mouhamadou Hanafi man maa ngi koy soog a xam maa ngi soog a dajeeg moom fii waaye kii sama jarbaat la laay wax ba pare sama jarbaat la papaam Cheikh Muxtaar Ibnu Daha jëloon na sama mag doomu Serigne Abbas. ba am ceeg ñoom ñaari shérif am ceeg moom ñaari shérif ba ma bi ma mujjee noo ak chef këram laa nekkoon muy koo xam ni eh, Sidi Xaaj Maay dafa ñi laysa shérifu alladi xuseyn waaliduhu min gayri ilmin wala taqwan wala adabi bal shérifu alladi min najli fatimatin مجانب الفعل عن لهو وعن طرب يعني بني وقت شريف تكتلوني سأسكن دمنا بتاح حسين دمتين صلى الله عليه وسلم بو عند لك خم خم عند لك تجن عند لك يرى أه، معبد حنفي مينك مين في نيناكو ورنا تيرا خمني يو ياي نيو بغنا بغنا بارا بارا وخد نتني moom yemul ci ni shérif la ndax baayam Mouhamadul Muxtaar ibnu Dahab ñëpp ko xam ci Mauritanie dinaa leen dinaa leen wax da ci ay kéemaanam rek parce que loolu taxu ñoo jóg tey pour ngeen xam kii euh, Mouhamad Hanafi baayam dafa sañ ci benn dëkk bu ñuy wax Boucheybiya Boucheybiya mi ngi ci soowu rooso yàlla dogal man mii daanaa dem ci ziar bi waaye dinaa ci nekk lu tuuti mu suuf soosu mu am ñu ngi koy xëccool mu am ñu ngi xëccool suuf sa xëccoo bu metti lool ba gouvernement gouvernement Mauritanie dox suuf sa Cheikh Mouhamed Moukhtar Ibn Dahab baayam moom kéemaan ah comme ay kilifa la ñam ko doon xëccool fa ay jaani dëkk bépp di jaani ñàngoor nga xam da nii man keroog dem naa fekke naa jaan ya da ngay toog ay ponkali jaani ñàngoor papaam dañu maalis dañu d'accord bett na waaye li ñuy ragale jaan bu fi am tey nii lañ doon rombante jaan dañuy tëdd lii toog di waxtaan ay ponkali jaan nangul di ñu romb nii Chérif Mokhtar li mu dëkk def mooy benn jaan du mat ci dëkk bi yëpp ay jaan ni ngay rombe weñ yi ci mel ci bëccëg bi noonu la jaan yi meloon léegi nag at mu nekk jaan yi di wàññeeku at mu nekk ba mu jeex tàkk baayam mës naa ñëw di siyaara si raw bu Sëriñ Abbas fekk jamono boobu gannaaw Sëñ Abbas bi mu génnee àddina dañoo yeexam miraas lool miraas yi dañ koo yeexe comme li am ci këru kilifa yi waaye ba mu génnee li ma njëkk a wax mu ne Sëñ Abbas léegi la ma wax nee ngeen gaaw ci miraas bi Sëñ Abbas nee ngeen gaaw ci miraas moom nag yàlla di moom nag yemul ci lool nag dafa jàng ca Nouakchott am na benn jàkk zawe bi ñuy wax zawe imam mo fay khutba et université de Dakar bi jangé na fa jàngale na kon mom xamna Sénégal bu dee ci walu xam xam-xam bu dee ci walu xam xam-xam li ñu koy wax lo manam bu fekkonte yi dañuy natt xam-xam dañ nan ap potu lox bu ñu tanké la ci géej waaw ap potu lox bu ñu tanké ci géej kon nak duñu mëna guddal parce que daf ñoo bét